والقلم وما يسطرون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 waaye waxoon ku baax karim dama ko jot ñu naw te amu ci benn loolu laa lay waxaat rek ndaxte yonente bi alayhi wax ni képp ko askanoo ji ku dul baayam rek yàlla rëbb na ko kon yow daanaka atte doomi jaaloo nga am ne am na kilifa gu mag goo xam te ne mos naa jiite yoonu murit radiyallahu anhu da nga daan wër naan mooy sa baay ba loola mujj kalaate nga wër demaat ci geneen kër li fa nga dëkk man nag man Xaadim Buso Eh, ki ma jur ki ko jur doomi suñu mbàkk bu sa la suñu mbàkk bu sa yaayam ak bàyyi suñ tubaa ñoo bokk bàyyi bàyyam ak yaayi suñ ma fenn suñ tubaa maa ngi sant yàlla bu baax a bokk fa nga boo ko bañee da fekk nga gën faa ñaaw la nga ko bañee daa fekk nga gën faa ñaaw kër googu ngay askanoo nag moom la ndaxte suñ tubaa daan wax naan diw de kum yaakaar suñ daar sañ jaare kum kum yaakaar war ngaa góorgóorlu suñ magalu gerte rek ñoom lañ ko tuddee woon ñoom moom ñu set lañ ñu am maanaa lañ waaye nag ma lay xamal ni àtteeb doomu njaaloo rek nga yor yow yow sa ndoxum man yi dañ ko sànni ndax yi tax ñu sànni ko mooy yaa ngi sam nee na ku askano ku dul bàyyam rek maanaam na ko kon boo gisee ñu araamal maam ñu araamal njaaloo ak wax yi doomu njaaloo amut bàyyi maanaam dañoo bañ askano nit ci fu mu bokkut yow nag sa sa sa lépp mooy askano wax ne xaddu saaxir an yoqtaan nuquhu am njabaatkat ab àtteem moo ñu dagg baatam moo tax suñu borom wax ni wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idhnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum wa laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq waxaan ni wala yuflihu as-sahiru haythu ata am jabartal moom du am ndam mukk ab atte moo ñu rey ko man awma bàyyi ju dudd suñ diw bay njaay ngir ay fas di fas ay ay taam ñu koy fay juróom ay taam ñu koy fay juróomi dërëm déedéet awma loolu moo mën di jaay di dem di kër kas di tas kër yi kër yi kër yi borom xam-xam ñu ci diine yi ba fu mu fu mu fu mu mos a jógee suñu baaxee mën ko jógal foofu man bokkuma ci yooyu. Eh, yow nag li ma la wax rek atteb doomi njaaloo nga yor kon dootoo am nawle beneen bi mooy atteb njabarkat moo ñu dagg boppam yow fi ne néew buy dox ci kaw suuf nga ndax njabarkat moom yonente bi sam nee na dañ ko war a dañ ko war a rey yow nag dangaa laal laa laak ndax danga ma ma laa xam te xamoo ma xam naa moo tax ngay wër di wax ndax ba nga njëkkee wax dama laa tontu moo tax nga jàpp ne xëy na damaa ragal wala dama am ko waaye ku ma xam-xam ne moom fit moom ci man la yem maa ngi sant a baax a baax beneen bi mooy ma xamal la ni la euh, sa comme yow wax ci passé rek moo la neex sa soxna suñu njëkk la ko tas man man man de maanaam sama ngor ak sama diine weesu na fu may sacrifier sama doom ngir alali àdduna xalaatuma ko ci àdduna bu ma sacrifier mukk sama doom ngir alali àdduna du ma ko def li may wax xam ko bu baax a baax a baax euh, beneen bi mooy comme weerante la rek bisimilah nañ ci dem maa yow li nga xam ni maanaam nañ ci dem rek euh, am maa nag fen yi nga fen li nga wax wax dëgg yàlla daa nga fen sax fen yu tane ndax da nga fen fen yoo xam ne dafa day logique waaye fen yi moom daa logique ndax Omar Diagne mën naa ko jënd Omar Diagne mën naa ko jënd yow yaakaar naa ba may jàng sax xëy na su ma jubul mën naa da ngay raam wala kii ndax lu mu gàtt gàtt mag naa la 15 ans yaakaar naa lu mu gàtt gàtt mag naa nga ñëw sama kër yorub tax seeg diw rek wax nanga mag maan la ay sëriñ yooyu yooyu du ma ci sori waaye daal li may wax mooy ndax xel nangu na man may sàkku alal ci Omar Diagne wala déet rek li ñuy déglu dinañ xam ndax xel nangu na euh, nga bëgg ñu changé ko te mooy maanaam kii nga xam te nii nit ku bon la ku jóg attaqué Sëriñ Tuubaa ñun ñu koy attaqué nga bëgg wax ji jeex tax nga ne naa ci dugg ma bu ñu duggee xeex bi dina sama diggante ak moom ngir mu jeex loolu jeexalu ko daanaka tontu waaye teew dañuy continuer xeex bi. muy Tawfekh ju rëy